Abonnez-vous sur votre chaîne TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. allo. ki mooy doomu Dangu le grand champion. waaw mais ah. lu bari. waaw macha allah macha allah. xam nga ne du ma moromu de. Oh, yow loolu sa mbir la sport sa mbir la. mbir sa mbir la moom. loolu loolu leer na. alors yow ban xeetu entraînement ngay def kër ga en fait euh, bu ñu boo xam boo dematul salle est-ce que di nga am matériel yoo xamante ne di koy utiliser nu muy demee. waa ñun nag ñu ngi sant yàlla parce que dañu delluwaat cosaan rek. parce que avant ñu dem ci saal yi nga xam ne moo ëpp ay équipement dañu amoon ay saal yoo xam ne comme saalu local yi. d'accord. amoon nañ ci ay matériels yoo xam ne tey jii même bu ñu bu saal yooyu tëjee tey jii dinañ mën a tàggat suñu yaram foofu quoi xam nga boo nekkee professionnel. boo amee ñaari bant sax di nga si mën a entraîner li nga bëgg. c'est vrai c'est vrai. waaw mais ñun moom am wax dëgg yàlla conditions yi ñuy entraîner nii bu dul dem contact mën nañ ci préparer combat. mën ngeen see euh, préparer combat. mu nekk waaw mhm. ba pare aussi ñu judd ju gis sañu grand frère yi nga xam ne dañ leen di fréquenter. ñoom ñëpp aussi di di di di di yëngu ci làmb. alors doomu Danko doomu Danko gi dugg ci làmb nan la ak waa kër ga ndax d'accord woon sa wajur yi est que nangu woon nañu nga dugg ci làmb nan la woon naka la ñu tuuti processus boobu. waaw man nag euh, su ma waaju bu góor suma ma bu góor dafa teel a wàññeeku bi may am sept ans presque bi may dugg école la la la wàññeeku ñu ngi koy ñaanal aussi fi mu nekk gënal ko fii. suma ma bu jigéen aussi sonnoon ci man lool. mais mosul mosul woon ànd nag wax dëgg yàlla si ñu bëree. parce que xam nga cest am na niveau yoo xam ne boo fa demee ba toll ci jàng rek dañuy gis ne jàng wi àndul ak sport ñun sénégalais yi habitude boobu la ñu am. en waaw parce que man mën naa wax ne bi may bi may bi may dugg ci bëre bi surtout maa bëre dóor ah, parce que bëre bëre simple sax yàgg nañ ko fooyee ci koñ yi. mais bëre dóor moom bi ma siy dugg maa ngi def euh, boobu maa ngi def seconde bi may def seconde. Hmm. bi may def seconde la laa njëkk am combat arène. d'accord. waaw boobu aussi boo xoolee après bon un an laa jàngat rek après après abandonné école bi. d'accord cest bi ma bi ma defee première ba pare. ba war a dem defi terminal. boobu nag xam nga ñu def suñu ndijaay doon exister si làmb muy Pala Mengu ñu ngi koy nuyu au passage. oui. utaloon ñu benn combat arène yoof en deux mille dix. nekk ci di bëree yàlla may ñu ndam. Hmm. ab samedi la woon sax je me rappelle ñu noppal ko dimanche bi xëy leen di war a jàngi dem jàngi école. boobu télé yëpp yëpp wane wane nañu ñu xëy nag école bi comme si ñun ñoo moom école bi. doomu daangu doomu daangu xam nga affaire vedette bi commencé dugg affaire xale commencé dugg euphorie bi xam nga maître yi ñuy jàng sax pour ñun sax ñu ñoo leen ëpp niveau. mu def boo xoolee presque année boobu sax taxu kaa taxukaa jekk noonu suma jànga boo xoolee man dama daan xëy sept heures heure bi nga xam ne moom lañu war a jàngi ma ma dem géej entraîné ji suñu école nag dafa jege géej gi lool su ma demee géej entraîné ji presque ay huit heures et demi lay pare mais su ma ñëwee su ma ñëwee toog si école bi si classe bi sax damay nelaw du ma du mën a sax suivre après par la suite tamit te yàlla dafa def bi ma bëree. yàlla may ma ndam dama xëy su ma ndijaay paa la méng utalaat ma beneen combat ma da ngay bëriwaat. d'accord d'accord. waaw boo xoolee daal man naa wax daal man jàng moo bëre moo yàq suma jàng nag. mais est que demoo ba benn moment xaw kaa regretté niveau bi nga toll woon mënoon ngaa jàng boole ko làmb euh, ni ñu koy waxee euh, je si euh, doomu dàmb bu fekkee mu ñuy dégg alors je disais. allo doomu dàngu voilà voilà doomu dàngu am na kuy dëggal fii Babacar ah Babacar nee na je suis tellement ok alors je disais regret parce que nga dem ba benn moment am benn niveau bi est que xalaatoo mën ngaa boole njàng bi ak li nga xamante ne mooy sport bi waa dañuy am ay regret dañuy am ay regret yu baa yu baree bari bari bari bari wax dëgg yàlla parce que euh, mënoon nañ ko mënoon nañ ko boole moment boobu mais mën nañu wax ne boobu esprit xale moo ñu gagné boo xoolee en 2010 ni làmb menoon Sénégal c'est-à-dire dafa dafa occupé woon lu bëree bëri dafa amoon place bu am importance boo xoolee année boobu si la ay ay Balla Gaye génne Modou Lo ainsi de suite aussi ñooñu nekkoon suñuy suñuy idole te comme ni ma la koy waxee maa ngi lay wax naan léegi man suma suma papa dafa teel a wàññeeku man école bi ma doon jàngee sama yaay foofu la daan jaayee ndékki d'accord moment boobu aussi c'est-à-dire neexuñu woon neexuñu woon ñu gis maire bi maanaam cest ñu dire bokk ma bokkaloon classe ñëpp seen yaay danañ daan dul daanuñu leen indi dañ daan dañ daan jàngi si seen yaay tëdd ci kër di nelaw xam nga li ma la wax man daan naa bàyyi loolu xel dama daan wax man cest dama war a gaaw réussir pour jële maire bi si lii waaw ñu ngi rëccu damay rëccu nag ma li ma bàyyi jàng mais rëccu ma aussi li ma dugg ci làmb parce que tey jii nu ma mel ak lu ma am rek làmb moo ma ko may waaw d'accord mu nekk mu solo. mu nekk lu mm-hmm. nga ñëw euh, waa ñu bëri buñ may suivre sax mën nañ jël ay si ci li may wax xam nga dañu dëkk ci quartier Lébu dëkk aussi ci dëkku Lébu. muy Tëngéej. soo xoolee fii chaque vendredi samedi dimanche da am benn koñ day tëgg làmb. amul benn benn làmb boo xam ne. tey jii dem nañ fa taxawuñu bokkuñu si carré d'as bi maanaam taxawuñu final wala ñu taxaw demi final loolu waa Tëngéej ji may seetaan mën nañ ma jël man dinaa leen jël en témoin non amoon na si amoon na si boobu sax moo gënoon gënoon metti boo xoolee nit ñi léegi dañu gën a civilisé boo xoolee làmba cest dire ni mu mel ci arène euh, ay ay ay ay boo jëlee quinze ans si ginnaaw dafa amoon violence bu bari de même que aussi Mbapati Mbapati noonu la meloon parce que boobu genre boo xoolee làmb de c'est-à-dire defuñu ko woon métier. Ah. juste su plaisir lañ ko defoon daanañu mbëri daanañu entraîner comme ni ñuy entraîner nii xam nga da nga naan toog ba samedi dimanche après nga nga takk sa ngemb dem bëre ji te ñun bu ñu daan bëree c'est-à-dire koñ koñ ñun fi ñu dëkk nii dàngu dañ daan fi tëgg làmb sax nga gis benn groupe formé benn écurie d'accord d'accord d'accord bu ñu ñëwee ci làmba dañuy dañuy reyante mais après aussi dañuy xam ne bu jeexee jeex na. Mm-hmm, mm-hmm. bu ñu nekkee ci làmba ji su ma la waxee leen ne limousine max moom lu ñu deful ci làmba amul. la wax ni limousine mel. limousine mel na mi may àndal nii lu ñu deful max moom ci làmb amul. <laughs> dañ daan tase si mbapat mbapat sérieux dañ daan tase si mbapat duñu tirage. dañuy tënkunte ba xam nga làmba yi daanaan am tirage mais duñu tirage maax moom dañuy tënkunte ba ñu ñuy seppi ñu. ñu dem bëre ñu dem bëre après bu jeexee jeex na quoi. mais mais xam nga léegi moom mën naa wax ne yooyu loolu jàll na quoi loolu xam nga du du jekk. mais mais mën naa limousine moom daan wala maa daan limousine xam nga. mais formation la woon. waaw formation la woon non Cheikh Amar li ma lay wax nii dama lay jox ay exemple ama neex sokosim bëri nañ. ama neex ñëpp bëri nañ fii ñi ngay gis nii ñëpp. ama neex nag moo ñu moo ñu xawoon moo ñu mag mooy suñu mag ci làmb parce que ba muy bëri ñu nu bëreew ñu. mais mm-hmm. ñooñu ñëpp dabante nañ. bëri seen biir te tey jii boo gisee da naan noo ñaar ñi lii masul am donc formation bi foofu foofu la woon cest à comme ñu dañ koy dund comme ni ñu dundee nawetaan. d'accord bu ñu nekkee bu ñu nekkee tënkee suñu biir ñun nañu reyante mm-hmm. nañu def ñu def yëpp mais Kanta dañu war a génne dem Dakar cest à c'est le département de Rufisque mooy booloo ñu nekk benn. Mm-hmm. waaw d'accord. dañ ma ñëw waaw dañ ñëw rek sóob ma si làmbaj cest à xam nga boo positionné woon ay ay six sept di nga gis ñaari combats yoo xaw a dawul sax sam xel xaw a dal mais premier combat bi ma duggee ba bi ñuy essayé baafuli ipongaari xaw ma ñu xobaay bi muy essayé baafuli bi mu waxee samay nopp déggatul dama tëx sérieux li ma lay wax nii du caaxaan <laughs> ba non dégg déggatuma sérieux ba pare li si gën a garaaw ma gis ñu barrière géew bi man ne ñii dañu dugal fii kon pour tey ñu war a rayante quoi kon fii dara desu fi lu dul affaire guerrier sérieux subitement li ma lay wax nii noonu la travaillé suma bopp mm-hmm. ma ñëw nag mu nekk combat boo xam ne combat bu rapide yàlla defal ma ci ndam te boobu yaru baax bi mu doon bëreel mbëru séeréer la woon moo ngi contact ba noppay wow koŋ <laughs> sérieux ma nekk fii problème am na tey président Dangu Family maa koy siyaar moom tamit maa koy ah. moo dugg noonu ñu koy siyaar président. waaw maa ngi koy siyaar lu bari ak euh, ak Marvin maa ngi koy siyaar aussi. yeah yeah. Euh, mu mu nekk lu diis yàlla def aussi mu ëpp ma kàttan lool si làmba bi ma ñëwee si làmba ji xaw ma kan laa war a bëreel. d'accord. ñëw aussi wax dëgg yàlla ma ma dànk avec la manière. ci seen victoire yi ci sa carrière. ban défaite euh, ban victoire moo la ci gën a neex nga xamante ne donte ni victoire yëpp neex na mais boo toogee xalaat ko waa Cheikh nag su ma la su ma la waxee dëgg. Hmm. loolu dalaguma ci làmb amaguma victoire boo xam ne damay tëdd sax mu may neex parce que xam nga lan moo tax. non da nga ñu nax moo tax. lan moo tax. dire ñi ma war a bëreel ba léegi bëreeku ma ñoom. nga c'est-à-dire daf dafay prématuré trop trop ma naan am naa victoire bu ma neex si làmb te amaguma ko. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que su may potentiel adversaire ñi nga xam ne tey jii def naa ci làmb wala sama sama sama lépp làmb mooy palmarès bi mm-hmm. muy mbooloo mu may indi muy kàttan gi nekk ci man ak technicité bi ak aussi lépp joxaguñ ma adversaire boo xam ne tey jii. d'accord jël naa ko ñu ne ma lii c'est un combat yaay am defet moo la ci gën a métti nga xamante ne je sais daanu nga mais boo tuddee neexu la donte defet yëpp a métti mais boo tuddee da ngay xam ne defet defet bi nga xam ne nag moom ma gën a métti suma carrière fi ma tolloogum quoi ñu ngi ñaan yàlla nag mu yem fa si ñeent yooyu mais defet bi ma gën a metti cest à euh, suma combat Tyson 2 la. Tyson waaw parce que lu tax defet bi gën ma métti. Hmm. mooy dama jël combat bi ma préparé ko c'est-à-dire ñëpp ñëpp ne Tyson 2 du moroomu doomu daangu. d'accord d'accord. aussi mu mu mayoon ma sens aussi ci làmb. Hmm. ma jël combat bi xam li nekk ci man. taal làmb ma jël combat bi. ok. liggéey liggéey si lu metti d'accord am stratégie stratégie boo xam ne. moom laa waroon bëree. ñu ñëw c'est-à-dire euh, man ba li nga xam ne moom laa indi. Mm-hmm. mais ma ñëw ci combat bi xeexuma bëreew ma ba pare ñàkk combat bi. xam nga làmb lan moo ci gën a métti. mooy cest mbër mbër mu mbër mu bëree. fin saison am défaite défaite boobu dalay topp ba saison bi di ñëw. la plupart bu ñu proposé adversaire adversaire bi day bañ boo xoolee sa cachet dafay wàññeeku. c'est-à-dire damay redoubler d'effort. ba lépp lu mënti amaat rek ndam laay gis. Mm-hmm. ma préparé sama combat ak daan comme il le faut. aussi condition yëpp di aussi maa ngi gërëmal waa Dangu parce que ak waa Tëngéej parce que combat boobu amoon nañ ci taxawaay boo xam ne euh, macha allah daal. Mm-hmm. mais des fois suñu borom bu bu buy defar dafay mel ni kuy yàq. Mm-hmm. ma ñëw ma ñëw ci combat bi aussi ñëpp gis nañ maa def lépp. d'accord ñàkk ñàkk si ñàkk dernière minute ñàkk. wala da nga da boobu rek wax li nga liggéey woon. dafa dafa bari mooy xam nga première première combat si si ay phase de poule cest ak lu mënte am rek da nga war a gagné. Mm-hmm. mais combat boobu comme ni ma la ko dama si liggéeyoon loo xam ne cest Euh, xam nga làmb moom ñaari ñaari góor a koy def. Mm-hmm. te aussi ñun ay ay doomu doomu lébu lañ. Mm-hmm. mën nañoo mën nañoo ñàkk mais duñu c'est-à-dire suñu ñàkk a njàmbaar kenn du ko ñun noonu la ñu jàngalee. ma mm-hmm. ñëw si combat bi préparé combat boobu cest dama ko bëri ak bakkan. te làmb aussi du noonu làmb làmb naxante la. d'accord. mais combat boobu boo xoolee dama ñëw euh, mën naa wax ne. làmb daal nit la combat boobu boo xoolee dama ñëw sol yére maa sol yére ji sol tubéy bi sol dàll bi sama adversaire may ma ko dara. te làmb du noonu. làmb du noonu làmb da ngay jël lii maanaam da nga koy xaajoo da ngay jox sa adversaire lii jël lii. mais soo ñëwee soo ñëwee genre bëgg bëgg a jël lépp rek nga bëgg fecc fecc bi mobiliser mobiliser bi bëre bëre bi daan daan bi dafay dafay xaw a yéeme. dafay dafay dafay yéeme. alors euh, nga hmm. génn ci nga génn ci daal di euh, benn nga génn ci ak benn hmm. nga daal euh, nga xamante ne moom mooy mobile ki nga xamante ne moom mooy sa hmm. combat ak soq mit mënoon naa wax ni cinquante cinquante lañu doon parce que état physique yi yéen ñaar pour kenn wax nga daan soq waru yombul woon donc même chose mobile alors nga génn ci macha allah ak benn ak benn après nga tegaat ci kan. après ñaxa jariñu laa moom euh, final bi ñaxa la laa jot laa bëreel. après moom laa mujjee daal mais ñooñu naan ataaya. ma ma ma ma maa ngi naan maa ngi yi ñoo leen ñu naan ataaya. waaw si ñàkk adversaire la parce que boo xoolee combat boobu. boo xoolee man presque juillet laa ko bëree fin saison dama ko bëri tey ñu xëy Modou Lo kii bëree nu mu tuddati non Eumeu Sène waaw non Modou Lo kii bëree Modou Lo Eumeu Sène. Hmm. cest à saison bi doon nañu am ay proposition mais proposition yi ñu doon gis yëpp woon proposition boo xam ne waroon nañ yàkkamti jël ko. mais bi ñu demee ba. saison bi cate bi ñu demee ba saison bi cate ñu xam ne tey jii par exemple seul adversaire bi moo si des bu ñuy proposé ñu xam ne aussi buñ ko jëlulee c'est-à-dire au fil euh, à l'année blanche xam nga. après ñu mm. ne bon pourquoi pas ñu jël ko aussi comme que ñoo ngi entraîné aussi suñ ko jëlulee aussi pertement la rek si ñun quoi. Euh, waaw loolu ndax am mm-hmm. benn mbër boo xamante ne hmm, benn mbër boo xamante ne impressionné na la même bokkul tëngee boo xamante daan ko bàyyi bon ba fi may waxaa yow nii am na mbër moo xam ne taari dama impressionné muy muy muy peut-être su ma ko waxee sax gars yi dañuy foog ne dama ko faral wala lii mais faraluma ko muy Balla Gaye. Balla Gaye waaw mooy mooy si man nag bi may débuté suma carrière c'est-à-dire Tyson moo nekkoon suma suma idole wax dëgg yàlla avant may bëri benn combat mais ah. après li ma li ma gisoon si Tyson fulla gi ak fayda gi de plus dama ko gis si Balla Gaye muy ñime gi man à dire bëri gi ak aussi c'est-à-dire lu lu lu mu wax rek dina ko jéem a def hmm. ak aussi ni muy neexalee bés parce que làmb xam nga làmb dafa xaw a doy hmm. dafa am ñooxam xam ne cest man bu ma promoteur joxee joxe joxe avance am rek ak lépp lu ma mën a entraîné damay fexe ba bés ba làmba ji neex. Mm-hmm. te làmba ni muy neexee ci géew ba lay nekk. Mm-hmm. mooy soo entraîné ba pare nga ñëw c'est-à-dire bañ fa nekk di daw de gauche à droite nga ñëw def fulla ak fayda même booy ñàkk aussi nga ñàkk dignement mm-hmm. et loolu euh, loolu loolu lu ma neex la daal ci mbër. yow daal Balla Gaye bokk na si ñu la gën a impressionné ba pare euh, mu bokk si ñi nga xamante ne da jàng si ñoom lu bëri quoi. waaw non parce que xam nga lu tax c'est-à-dire mbër ñime te lu ñu mënti wax xam nañ ne daa ñime. Mm-hmm. d'accord euh, doomu dàngu yaa ngi wax sànq ba tey samay adversaire gars yi joxuñu ma samay adversaire joxuñu ma samay naataango mais doomu dàngu. Euh, mm-hmm. mais gars yi dox nañu sa diggante ak wala gars yi dañ lay wax Franc mais doo leen doo leen fulal mais loolu la. nag. Ah, non non promoteur benn amul benn promoteur bu ma a gum oo wax ma waxu franc. parce que bi nga jour bi ngay bëree euh, euh, jour boobu moom la bëree. nga xamante ne. waaw euh, voilà. moo bëree ma bëree. voilà moom moo bëree nga bëree. alors gars dañu doon wax ne combat bi inversé yow yaa waroon a ki nga xamante ne moom franc. mu nekk combat choc mhm. pourquoi pas. waaw comme niñ koy waxee boo xoolee tey jii dañoo dañoo xaw a nduróo morphologie boo xoolee moom jour boobu ki mu doon bëreel ak man ki mu doon bëreel y avait y différence. dëgg la. waaw mais mais aussi làmb aussi dafa am yoon. d'accord c'est pas parce que parce que nit ki da ngeen tolloo rek da ngeen war a bëre. Hmm. vécu bi dafay am solo aussi jaar-jaar bi parce que aussi ku nekk ak carrière tey jii boo jëlee si jour boobu Franc di bëre su ma jumul moo ngi ci huitième combat am xaw ma septième combat am. te man jour boobu la nekkoon suma vingtième combat. mais est-ce que li ñuy euh, làmb day làmb euh, je euh, la ci fekkante combat boobu noonu. Mm-hmm. non cest à man xam nga la laa gëm pour wax li nga xam ne rek moo nekk ci man man dama gëm ne. làmb kuñ la boolel rek combat la mën ngaa wax du combat du combat mais buñ boolee doomu daangu ak yaawu jaal combat la. Mm-hmm. parce que des fois nga gis mbër ñu jox ko euh, combat mu naan xaalis ñu boole wala lii ak lii et des fois xaalis boobu sax moo lay daaneel. moo mais xam nga boo xoolee tey jii cest dafa am benn logique bu am ci làmb. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy tey jii doomu daangu moom bi muy bi muy bi muy débuté carrière am Franc xamu ko moom xamul Franc ku si nekk aussi di trase yoonam. Hmm. mais nag comme ni nga ko waxee nag nit ñi dañuy wax làmb la hmm, dak làmb la làmb mais aussi amagul benn promoteur boo xam ne mas na ma oo proposé ma Franc te promoteur yi nag dama lay leen ay amateur lañ. oui dëgg ñoom xam nañ lu lu jaadu ak lu jaaduwul. mais da nga jàpp ni combat boobu jaaduwul quoi. pour ma jàll ci li nga raw ci làmb la li nga ci nombre de victoire la du sa adversaire moment bi wala. non nekkul suma adversaire na pour wax dëgg pour même promoteur benn promoteur jotuma see oo proposé ma ko mais promoteur aussi bu ma ko proposé aussi nekkul combat boo xam ne sax dama koy jël quoi vraiment. d' accord d' accord maa maa ngi dégg ci suuf euh, sa waay naan Modou Anta Modou Anta mm-hmm. Anta Thiès. Mm-hmm. waaw comme ni nga wax ni xam nga làmb làmb dafa am comme ni nga waxee dafa am dabante. Mm-hmm. te boo xoolee cest à man man mën naa wax ne mbëru amateur yi laa des fois lu amateur yi wax ne lii jaadu na rek damay nangu ne lii jaadu. ba mu allah bari na suñ ko doon mm-hmm. lim di jógee ñu leen di mais aussi di bëggee ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaana. Ah, que ça soit fan. Mm-hmm. doomu tàngu yi waa affaire yooyu noonu gis nañ dernier combat am mu defee open press koñam niñ ko niñ ko mm-hmm. taxawoo rawatina yi nga xamante ñoom lay àndal alors euh, mm-hmm. doomu doomu dàngu mm-hmm. lu ma wax nga ne ma duñ man boo xoolee Cheikh Amar man man waxuma lu lu jaaruwul non bu fi nekk naan ma ay non du ma lim balaa ñoo dama leen di waajal waajaloo kenn mbëri seen bopp xam loolu amatul yaa ngi wax ne duñ samay adversaire dimbalil waaw yow Cheikh Omar yow yow nitu làmb nga ba pare sportif nga yow combat yi jaadu si doomu daangu xam nga ka doomu daangu non man du ma nekk fii di fi tudd kenn parce que ñooñu gars yi di tudd pour ma war a bëreeg ñoom defuñu fi li ma fi deful mm-hmm. yaa ngi may dégg te man demandeetuma kenn sens damaa dugg si ñoom mu neex leen mu naxari leen. Hmm. Hmm. te loolu liggéey moo fi indi suñ ma jëlul aussi bëreeg man dama leen di romb rek dem ci ñi nekk seen kanam. Hmm. mais daal li ma la mën a wax daal mooy ñi nga xam ne ñoo topp si ginnaaw VIP yi. waaw. ñoo topp si ginnaaw VIP yi ban catégorie la. alors ñi topp ci ginnaaw VIP yi Sa Thiès la bokk. Mm-hmm. Euh, je sais pas Sa Thiès Sa Thiès la bokk d'accord nga. yaay wax ma naan waaw rek. Yékini Junior si la bokk. waaw. <laughs> kan encore euh, Modou Anta bu Thiès si la bokk. Thiès euh, kan encore bëri na bëri na fi nekkee di lim du foofu ngay lim ñooñu ngay lim noonu man ci cercle boobu laa bokk. regret laa wax si bokk. dama ne ngay lim yëpp sumay adversaire lañ. ci antichambre ci antichambre euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy VIP yi fa nga bokk force. waaw mais yow xam nga làmb cest bu bu weesoo ñooñu ñan ñoo fi nekkaat man dama dugg si ñoom dama dama kaa dama kaa wane ci lépp. yaa ngi may dégg. oui oui mais doomu bu fekkee da nga fi nekk aussi comme li la daloon bi ngay jël feu bu la dalaatee est-ce que du méttiwaat parce xamante ne effectivement adversaire boo xamante ne yow bu neex boo est-ce aussi doo dem ba benn mois ba lu fi nekk ngay jël quoi. waaw non dafay am des fois mais wax dëgg yàlla si saison bi ñu nekk nii. far sax cat dugg si. di ñaan aussi comme ni ñu koy waxee rek euh, ñu ngi ñaan suñu borom feer bi gaaw juge fi. aussi ku nekk reprendre se activités. Mm-hmm. su woon su dul woon si si si loolu. Euh, c'est-à-dire damay am ni ma la koy waxee nekkuma woon nit ku pressé si saison bii. c'est-à-dire ne gisuma woon ne dama dama c'est-à-dire en balance da dafa doon doon ma gënal. may tourné di bëriwaat combat yoo xam ne dañ naan diw moo man d' accord d' accord donc donc donc su ma déggee baax amoon nga proposition combat boo xamante ne xam nga ni àlla mas ni du sa adversaire si bari woon na depuis ba ma ba ma bëre daaw ba ba ba ñibbisee doon nañ ma proposer ay adversaires yoo xam ne bon vraiment su ma ko jëloon aussi nit ñi bu yàggee sax dañ naan kii dafa dafa bëgg la facilité xam nga li ma wax. Hmm. jaraloon ñu aussi cest ñoo ngi doon liggéey comme li ñu war a liggéey. Hmm. mais jaraloon na ñu à dire ñu def indépendance da doon ma gënal ma jël athlètes yooyu yi nga xam ne ñoo ngi doon ma ko tuddal. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.